asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, mbokk yi doon laaj téere gént bi muy tegtal yi mat jàpp ci gént te manqué woon ñu leen di yëgal ne moo laat nañ ko amaat na muy xaaj bu njëkk bi moo nekk nii ku ko soxla mën ngaa woote ci numéro bi moo xam Tuubaa nga nekk wala Dakar xaaju ñaareel bi moom it moo nekk nii moom it ku ko soxla mën ngaa woote ci numéro bi muy téere nag yoo xam ne yu ama am solo la di wax ci wàllu gént ak di ko jàngale te bari mu ñu ciy tegtaloo lool dafa jeexoon nag waaye moolaat nañ ko incha allah ku ko yittewoo rek mën ngaa woote ci numéro bi ñu fexe nga jot ko incha allah waa kay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.